ma fàttaliku leen ci wéradi wéradi dina ñëw fàttaliku leen ma ci seen am ma fàttaliku leen bu ngeen ñàkkee ñàkkaa ngi ñëw fàttaliku leen ma ci seen dund ma fàttaliku leen ci seen dee dee dina ñëw uskuruuni uskurukum waskuru lii wala takfuruni billaahi ku ko bàyyil xel yëfam yii mun la koo jaar fu mu gis mukk mukk mukk mukk ci tooñ ba mu yëg ko ndax yëfam yi ëpp na sa jaar sa tooñ bi moom daal di ak yëg la bëgg lislaam yëg la bëgg bu la sawarta tax nga def tisbaar juróom-benni ràkk doo am julli bu tayalit tax nga def timis ñaari ràkk doo am julli dafa bëgg rek bu nee anawaa ñépp a dem lu loo sonn sonn bu nee arrêt loo sawar sawar nga taxaw loo rek la bëgg a yëggi rek yëggi rek du noonu am na yu ñuy joxe ci lu tudda xawma xawaare xawma ak lu tudda ndawraab bi nag yu demee noonu yooyu moom ala kulli xaalin xaalis bii jaar ci sama loxo taxul may wax lool xaw mënuma muus mukk ba nëgër ni ëllëg fekk maak moom kon nag warula jël sama fit ba ma saalit wax lu tax mu di ma la jël bés pénc waaye dama ne xaalis bii moo gënal yàlla moo gënal nabi moo gënal gori lislaam yi fii mu dugg beneen xaalis bu dugg fu uuteeg fii mu dugg te dugg fa ci yàlla ak nabi moo gënit ci ko dugal tey mooy gënit ci moom ëllëg parce que bi nga joxe te yàlla taxul yàlla gàddul la remplacer te dig na la cay duma bi nga joxe ngir yàlla dina la ko remplacer te dina la ko fay ëllëg kon gëneen li feeñ te kat nee naa wërsëg yi mat naa bàyyi xel parce que dañuy wax ne dinañ la laaj noo ko amee woon téere yi waxul loolu sëriñ Sow boo nettalee ni nga ko amee ba noppi nañ la laaj nag foo ko dépensé foo ko dépensé gën a garaaw nag amin bi sax mën naa ñaaw dépense bi rafet ba tax ñu pardonné la ah waaw mën nga koo am amin wu ñaaw waaye nga fexe ba dépense ko façon boo xam ne yàlla dalay faf baal ngir dépense ba waaye ñaq ba am ko ci lu leew dépense ko foo xam ne dina juri perte ëllëg loolu perte rawu ko te am na koppar yoo xam ne kenn ñëmuñu ko expliquer yàlla fi nga ko def asalaamaaleykumati ajaratu astu fay moo may nuyu galagu na bi ma góor bul doxe noonu dem de na nga fi dellu siwaat laa wax dellu si bu mel noonu kenn ku ne def faatiha agal amul kenn ku ne ci lëf ba siiw ci yàgg ci ñu xam la ci kala ca tax a nekk xol ba di tooy tuuti tuuti tuuti tuuti te du fokk moo am lu mu la defal ma waxaat ko emploi yi yàgg ci kër sax te yàquñu fa léegi ñu takkal leen médaille bu tudd xama naka waaw kañ waaw kon léeg-léeg sunu borom ñun ñu ne ci lislaamam bi yéen ñii te cee jóg léeg-léeg daay man la sax moo am moom it lu mun a defal lu bokk sax ci pay man ci sama njort lu rafet ci sama yaakaar ci barkib ñii toog maa ngi bëgg a wax ne kontaanuma kontaan gu tax may wax yàlla ma wax loo samedi ji paase sama jàng yi ma paase óor na ñii ma toogal jëmma ñëw na ca juma sarax automobile oto ba presque un million nangam mayewu ko oto ba ba mu koy indi complète baraaye la ko boole oto ba ba mu koy indi bracelet la ko booleel bu jar six mille te laa nga gën a taxawit ok kenn ci samay gune wax ko loolu samedi bii paase laa wax waxuma bu daaw ba waxuma bu daaw jéeg ba oto bi taxaw fii maa ko fi indi ci mawlut yi ci la ko ma ko yàlla joxe mu di jaraafi mu di naaru góoru nabi boo xam ne bu ñu fetaloon badar tey ma war ko te kon yàgg naa am lu ci jaar sama loxo waaye lii may bëgg a wax ca yooye wax loo wuñu ma ko xëy na tey la ko yàlla dogal ma di ko wax te it yaakaar rek la ju tabbi sama xol moo di dama jortu ne ñun ñëpp bu ñu teewloo jàng fatiha bu sell ak ñetti salaat fatiha def ko ku ne def ko sa addiyee sëriñ sëriñam sëriñam ba ca nebi xalaat naa ne lu ci way diigal ci aajo dina faju ci li ma foog yàlla ma wax loo loolu nag nu def ko nag te bàyyi kom xel ba xam ndax ku ne li nga diigaloon kii na wala kiiwul bu kii itam ngeen fexe ba ma kii ko rek la waaw ma baaba si la la ñuy feeñal ak cantam ci laa biir gu mu nekke ca fañ ko féetale ak jokkale jullit ñi ak jàppandal leen lu waroon a jafeñ yal na ko yàlla jàppandalal ay jafeñ-jafeñam jàppandal jullit ñi jafeñ-jafeñam te yokk fa garaatam yokk garaati ñu ko ilif bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam noonu rek la yal na leen yàlla fay te taxawu leen na ngeen dundal bu baax l'islam bi côté bu ne nañu ngemb nanu ngemb waay nanu ngemb soppi façon bii yaa ngi bëgg a bari iblis a ngi dugal rek bii bii bii bii bii nañ ko wax bii la di waaw nanu fexe delloo ko bal bi nun itam te moo di tànt yi rek tànti alxuraan yi jàngal xale yi ñemeñ jàkk yi xoroor yi bari nodd yi bari njàpp yi tooy du nu mënal dara yàlla kat wàccoon ak nun boo solee mbubb kaar mu rafet boo lekkee mu niin boo tëddee mu nooy ba ñu gëjee ko soti almet xamuñu ko waxuma la ak ëpp taal lëf ngay naj rek mu leer frigidaire ci sa ngeganaay lal bu nooy booy tukki doo sufu ne kilomètres yu ndaw heure yu daw yoor yu gàtt ngay toog mu daw ak yow kilomètres yu yaa ki la indi lii dig la àjjana boole ci wax dëgg yàlla ku góor góorlu mën a sowe tey ak ëllëg yàlla nag noon na ma naa leen wax ne fii la mën a yem du taw libidoor mukk lànk na lii doy na ba àjjana nam di li xaybar nam di li xaybara li xaybara fiiha rayba كائنا مستمرين بما قالت سبي السلمي تلك المسافات لا ما يذهب ولا ما ينام
كالنبي محمد خطيب لرسل الله في الأزر زيد تتر بدنيا أخرى وبرزقه ويلا ينن مكارم تقوى وتلك المكارم فليل ويوم خائم مزاحم فلله منه ولك جزائم جدل المسايا فهو لرسل خاتم وللحق برهان ولرسل من أجون بجنة نمض لخيبر فيها سيبك لكو مستمرين بما حالت بسالنا
نمضي نمضي لخيبر فيه غيب كائنة نمضي مستمرين بما خالت سلمي سيدي مالك رضي الله تعالى عنه وارضى به nag su ba bàyyi Moustapha nekkoon xaybara fii ca xaybar jeyba kainatun mustamirina bima xaalat sawi salami góor su tol ni man Abdoulaye Abdoul Moutalib digéeg mag mu toll ni yàlla ca ba ma amul dara jabu ne bu ma mayee fukki doom yu góor yu may dimmale fi xitli wal xidami dinaa rey kenn nag ma wax ko ci célibataire mu wallu ma bàyyi maag bakken may ma wërsëg dëppale maag ku ma juboon ba ma am juróomi alxayr juróomi jigéen yooyu ma am ci fukki doom yu góor ñu yem sorom sama borom fàttali ma la ma waxante woon ak moom ma di ko def ngeen ne du fi amee ku dox sama digganteeg Abdoulaye Maray la bàyyeb ne bi bi góor gi ne bu ma amee fukki doom yu góor maamam dinaa rey kenn nag te lu ko yóbbe woon loolu wéetaay la ak noggatu gu ko màkk doon def ndax ne naa la amul néegu ndey ci màkk maami ne bi ndeyam a nga dëkk Medinatul Munawwara Salma ko jur bi muy ñëw màkk amu fa tànt amu fa nijaay amu fa doomi ndey te lébu ak arab ñooyem ñu fonk néeg ndey lañu baayam a ko indi rakki papaam moo ko jëli ku tudd mutlam baayam xaasim la tudd nekkoon kuy wër di jaay ak jënd dem Medina gis fa salma takkak yàlla dogal mu céetale ko xew-xew am fa bu jur xeex mu ànd ak gor ya xeexi deeca bàyyi jabaram jooju wan na lor lor wa di doom ju góor juddu weex tàllaj bi jaaw ñu di ko ooyee sëy batole am di mu toog fa bopp rakki papaam jooju ba mu mësooree mu jëli ko paase woon nañu loolu ca kër baay mbaari paase ko ca rëbës jëli nañ ko nag ba góor gaa ngi mag papaam bi ko jëli woon deena mu des fi amul wéeruwaay leeru nubuwatu gaa ngi ci moom moom la yàlla na la dénki teraanga yi ñu añaane ko ko ngir ñàkk néegub ndey boobu di ko jaar fu ne ci tiisal ak tiis ba mu wéet na bu ma amoon fukki doom dinaa rey kenn ki ngir sant ko yàlla am fanweeri ab am fukki doom fàtte ko ñu fàttali ko ko mu ne sañu ma leen a rey nag jàpp sañu maa jàpp kenn rey ko waaye dinaa ut bud dinañu buddi bul ku bulli ba ku bulli déegi dal ci yow ma rey la ñu buddi bul bul bi dal ci abdoulaye mi war a jur rasulilah xibaara ngoog de nabawun azimu góor ga na ko taal wa amanna wa isaaf ahlan wa sahlan yéen a ngi yeewu tuwar waaw masula dañ yal na leen ko yàlla yombalal baax yombalal ko jullit yëpp bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñun kat loolu ñuy wax loolu ñuy wax kii seetaankati lëf ba tàmm ko nañ ko tuddee amateur waaw ñoom ñooñu sama loolu lañu ci mawlu ak ñu bari na fu ma jànge ñu dem daay man ah mbay taal mul woon fi ñu déparé keroog lool la góor gaa nga téye bàyyi nebi raw ay buum daas paakaam raw ay buumam daas paakaam mu ngay bëmax Abdoulaye muy tërëf ci kanamam alaaji Malik ne mu nga jëm ak moom isaaf nit ña dogale ko mu retourné jëm ak moom naayila isaaf nag lu taxoon mu jëm fa muriid ifa isaaka nasri naayi la lu taxoon mu jëm fa muriid ifa isaaka nasri mooy woy ba ñu passé woon bu kenn woy ne na woy am ma jublu na moom alaaji maali gay wax ku jublu abdul muttalib fu mu jublu naawa isaafin place bu ñuy wax isaaf lu taxoon mu di fa dem muriid ngir gannam ma ifa isaaka nasri mottali la mu digge woon ak yàlla mooy rey doom ja ñu dogale ko mu ne wëlbit wahamma mu jublu naawa naa ilatin wàllu naa ila lu tax muridu ifa saka nasri ñu ne alaaji malik moo fuy isaaf ak naa ila mu ne ci biir màkk la nekk ndéem la muy wax ñor na ko mu ngi mel ni baaraam bu ñu dugal ci bët Moustapha fatta xel jamono bu ñuy woy ku seen foo xemem bëgg a topp topp fa ku am loo bëgg a wax wax ko bu nuy firi ngeen ne teg ma dem de ñu naan ko fuy isaaf ak naayila mu ne isaaf ci biir màkka la nekk naayila it ci biir màkka la nekk ku yàlla jàppandalati paas ba nga dem màkk sa mutawaf laaj ko fuy isaaf ak fuy naayila su ko xamul ngir turu cosaan la alaaji Maalik dafa rëñ téere yépp kon ah kon jegeñal ko ko am na weneen tur isaaf am na weneen tur naayila am na weneen tur isaaf mooy safaa naayilatu mooy marwa safa ak marwa ñaari barab la yu arab yi fonkoon lu jëkk lislaam daan nañ fa rey seeni gàtt jamonoy aj aj xewul ci nebi rek kaaba gi malaaka yi aj nañ ko ñaari junney at te binduñu maam aadama mosuñoo dañ di ko aj nebi sax aj na ko te di julli nebi aj na ñetti yoon aj goo xam ne aju kéefër la nit nit ñi daan def di ko def benn yoon rek la sallallahu alayhi wasallam aj ginnaaw bi mu gàddaayee ba lislaam dox benn yoon la aj alaaji malik way na ci mimi bii ne bu leen way xajja rasoola salaasan xable ijratihi xajja aji na rasoolu njool màkka salaasan ñetti aj ñetti aj yooyu na xable ijratihi lu jëkk bi mu laata génne màkka la kon ñetta ngoog bu baadu ginnaaw ñett yooyu abisan waññaaleel nag ajatul lislaam aj ak lislaam nga tal tësimi bi aj ñett yi daf ko def ci baax benn bi la ko def ci lislaam du noonu ñaari palaas yooyu lié la yu naa yu ñu fonkoon ni réew mu nekk amee foo fonk soo demee tëngéej am na barab bu ñu fonk maam yi daan na fa dem di wax ne seen maam seen ma ah ah rab bi yor tëngéej fa la ne ñu di fa tuuru dëkk boo dem noonu dëkk boo dem noonu màkka nag safa ak marwa fa lañ daan reye lu ñuy rey moo tax keroog ba nëbbi jëkkee aj si te aj gi di ajug lislaam ba mu ajee ba àggal gaay dañ ko ne des na safa ak marwa mag ñi daan nañ fa dem mu ne foofa duma fa dem xiram rek lañ fa daan def bëgg koo bàyyi li tax ci saan for yàlla ne ko ah ah bu ko bàyyi boole ko ci inna safa wa marwa من شعائر الله فمن هز البيت او احتمر فلا جناح عليه ان يتوفى ومن تطوع خيرا فان لا ساكن نجول ما كدول كو بولي سفانك بن لا لاجي تشانم نيل اساف لا اساف نيت لا نيت كو غور لا نائلتو بن لا لاجي تشانم مودي مروتا marwa jigéen la nit la nit ku jigéen la lu ko soppi xeer nag dañ leen def masxu lu jiitu ñëwuk nabi yàlla daan def masxu mooy nga mooy yàlla mu soppi la mbaam ñépp xam ne kër gi nit a ko moomoon ñu xëy fekk fa ngonka mbaam ñu xam ne borom def na lu neexul yàlla mu soppi ko mbaam mbaa mu xëy soppi la gola mbaa mu soppi la xeer wu rëy mbaa mu soppi la garab gu rëy bu ñu xëyee seet sa kër gisuñu la ñu laaj laaj foo tukki xamuñu ko te fekk fi garab gu réy te garab amuñu fi woon ñu xam ne yàllaa la masxu daana masxu nag nit ñi daana defit nasxu daana defit xarxu daana defit xarqu ñett yooyu yépp ne bi ne na musuma deñ di tiit ne dina ma dal sama xale ngi dal ne duma dal keroog ba ñu wàcc ci man bisi bi wala ma nusilati ilay fatihatul kitab amantu ala ummati min al xarqi wal masqi wal xarqi keroog ba ñu wàcc ci man bisi mi laa ne lii de kenn du ko mën ñu def la masku mbaa ñu def la xarqu mbaa ñu def la nasku keroog ba yàlla wàcce ci man bismillahi rahmaani rahim laa wóolu ne sama xeet bi kenn du leen def masku masku mooy soppi xarqu mooy sotti leen safara lakkandoo leen ni kuy bëtam gerte yàlla daanaka defu xeet ah xarqu moo di lamal leen ndox sotti leen ndox na mu defoon waa kër nooyi nee na bismillahi rahmaani rahim xeet wu ko am yooyu du leen dal léeg-léeg nag. yàlla am na benn waay bu mos di oote xam-xam li tax xam-xamatu la oote wa fawqa kulli si ilmin alimun foo yem ak xam-xam rek am na ko fa dale raw la ku la neeti maa la raw sax balaa ngaa nangu nekk ci lan parce que am na loo mën lu mu mën am déet ñun ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk ngi foo xam ne buñ fa demee nga doon sëriñ mag guy wayaasi ci genn gaal dem ba am ñetti fan ci géej gi génn di feexlu xale bu ndawan ko romb takki galenam jàng ba yàqu di waxtaan ak góor gi ci kaw gaal gi di waxtaan ak moom ba àgg ak moom pap jotoon ngaa am aba ak garaatu nangam ci jàng déedéet certificat déedéet baccalauréat déedéet diplôme déedéet waaw góor gi yow loo jàng mu ne ko sama baay dafa jërmeeloon man laa moon ci doom ju góor di ma liggéeyloo ba jotumaa jàng mu ne ko eh, papa yow itam eh, perdal nga sa genn wàlli dund nit addina bi ku ci ne tey amula benn xam-xam perdal nga sa genn wàlli dund baat ba naqari góor gi lool ñu dox ba jant so machine ba ayib dal ci xeer gaal ga toj commencé def ndox nit ñi futteeku ak a takkaayu pour jéem a féey góor gi dem tourné fekk gos baa ngi taxaw ak i galanam di lox nit ñaa ngi fe mu ne ko doom looy taxaw préparé mënu laa féey mu ne ko déedéet papa jotuma woon a jàng féey di be ko waxoon nga ma sànq ne yàq naa sama genn wàlli dund yow nag sa dund tuu nga yàq tey nga déedéet tey وفوق وفوق كل صيح علم عليم إن يسرق فقد سرق أقل من قبل فأذرها يوسف في نفسه ونبداله من ينبل أن تمسر مكة benn waay bu taxaw ci mbooloo rek di wax ne lu fi waay tële na lu fi waay lu wéere na ma ko laaj ku fi taxaw maa la raw benn njega maara ko dog gakloo na ko sëriñ bi maa ngi laa laaj genn masala mu ne ko mu ne ko jigéen buy sëy ba yàlla xëy mas ku jëkkëram dafa war a tënj ni kuñu ku jëkkëram dee wala day day jàppee da ni ku ñu fase am jëkkër jotu laa fase jotu la dee yàlla xëy soppi ko golo mbaa mu xëy soppi ko xeer ndaw soosu balaa sëy dafa toog quatre mois ak dix jours ni ku jëkkëram dee wala dafa am ñetti mbërëg ni ku ñu fase loolu laa laa laaj comme yaa fi raw sëriñ ba gàkk ne ko sa laaj gi du sa xam yàlla la yebal gàkk naa mu ne ko gàppariku suuf ma wax la ko góor gën a gurp ci suuf ndaw su ne ko sooy sëy ak sa jëkkër ba yàlla masku ko ndem la mu ko masku daf di borom ruu daf ko def mbaam mbaa golo mbaa fas mbaa nag mbaa luy nokki kooka day jàpp edd ni ku ñu fas a jëkkëram deeagul waaye ko bu ko defee wu doj mbaa mu def ko xeer dafa tëñ ji jëkkëram dee ah waaw kon safaak marwa noonu la meloon ci gaa yi alaaji malik nag comme booba kuy defal yàlla dara fa nga jëm moo tax góor ga ama naawa isaaf مريد إفادك نظري وأمنا ونا إله مريد إفادك نظري إسافنك أك ما أك أك أك أك أك أك أك نا إله muy safaak marwa góor ak jigéen la woon yu bëggante woon ci seen réew amuñu moye bu ñu mën a jotee ñu daje màkk mooy fa yàlla yàlla soppi leen ñaari xeer moom la ñuy jaabanteen di ba tey fala laaji Malick nag jëmoon fa la góor ga jëme woon xale ba pour rey ko ñu ne ko du fi amee mu taxaw